xamante ni dañ doon def soixante douze heures de l'ANSES comme ni ko yeneen département yi doon defee ak au niveau national léegi dañ daan def euh, vingt quatre heures lañ doon def mooy huit mars bi mais bi ñu xoolee huit mars bi journée bi dafay trop surchargé ñu nañ ko décalé ci mois de février daal di def soixante douze heures ko defee jour du mars ñu daal def clôture bi léegi durant ces soixante douze heures dañ doon def dépistage cancer du col de l'utérus ak vaccin HPV bi ensuite defaale nañ ci une dont 17 cols suspects qui ont bénéficié d'une thermoablation et 14 ont fait un FCV, le produit cérvico-vaginal, et IST traités même sur place. Ensuite, defal nañu offre de PF ci 72 heures yëpp mais 72 heures dañu ko décalé woon ci trois postes différents sites différents def nañ le 23 au poste de santé Diamaguène le 24 au poste de santé Gawane et le 6 mars au poste de santé Touba et aujourd'hui on fait la clôture au niveau du centre de santé cancer nekk na loo xamante doonatul gan ci parce que wax dëgg yàlla bu ñu wootee population bi ñu ñëw en masse dépisté wu des fois sax dañuy xool kii bi ñu koy defee pour xam bokk nañ ci éligible na wax mën nañ war mais ñëpp boo leen wooyee ñëpp parce que cancer nekk na jàngoro boo xamante moom léegi daa tere nelaw jigéen ñi parce que dafa am tranche koy jël teew boo wootee ñun ñëpp dañuy ñu ngi wuy si te yi cas yi mi ngi importance counseling bi loolu la moom counseling bi loolu lay jariñ pour ñu ce qui se passe réellement parce que bu fekkee xamuñu woon lan moo ci cancer parce que koo cancer déjà dañuy daw dañuy tiit duñ ñëw ndax boo xam dépistage yi duñ ñemee ñëw dépister leen mais bi message yi jàllee ak counseling ak aide gox yeeg relais yi léegi ñemee ko ba boo wootee affaire bi day ñëw ba yow da ngay dem arrêté moo tax ñu koy dispatché daal trois sites loolu moo tax laa ko trop ci journée bi xat ndax ñëpp ñoo bëgg ñu bénéficier wu ci offre bi waaw dañoo bëgg a dem seeti ay dons pour jàppale leen ko parce que fête bi ñëpp ñoo ko bokk xëy na ñoom da leen ci biir moo tax mais comme ñu ngi ci biir ak ñoom ñun amul liberté boobu ñu bàyyi leen seen wàll ci fête bi loolu lañ bëgg defaale leen dépistage après defaale leen defaale ay consultation mais bi ñu laajtee dañu nombre bi après bu ñu paree bu fekkee mënuñu ko def sur place heure bu ñu ci centre de santé dina leen offrir nekk sëy boobu offrir leen am nañ ci beneen causerie bu am au niveau du centre formation féminin causerie sur le cancer du col na sage-femme yi koy def foofu ainsi bu nekk nii waaw comme ñun on est un ñooy liggéeyandoo ñooy defandoo lépp activité yi ñuy def aussi ñun ñoo koy harmoniser au niveau de l'antenne bu ko defee ñu décentraliser ko moo tax on a commencé tout cette année commencé dans les postes les plus reculés ñu def fa des activités de dépistage pour que population yi nga xam ne ñoo gën a sori ñoom tamit jour boobu ñu mën a am accès au soins loolu moo tax mais ñun ñooy coordonné lépp yàlla dimbali nañu ci loolu parce que dañ ñu mayoon fii benn machine machine bi mu ngi ak ñun bu fekkante ne pour le dépistage du cancer du col la moom bu ñu dépister des lésions de pré des lésions précancéreuses on traite tout de waaw y a une sage-femme qui a été et elle place bu dee fruit yi nag foofu lañu am un peu de problème un peu de lenteur parce que boobu on est obligé yóbbu résultat yi toogaat di xaar mais bu fekkante ne c'est des lésions précancéreuses rek on traite tout de suite on dépiste et on traite bu fekkante ne c'est le cancer de sein moom tamit dañ leen di réorienté ci hôpitaux yi gën a kooku niveau 3 foofu la ñuy dem pour avoir un un suivi waaw bu fekkee ci journée yi moom ci la ñuy constaté gratuité yi voilà mais bu fekkante ne en dehors de loolu les les soins ne sont pas euh, assez assez assez faciles. Ah bon c'est une politique boo xamante ne ça démarre ba léegi ñu ngi si xaar état bi tamit ñu jàppale si jigéen ñi dugal si seen loxo ba mu gën a mën a oyof parce que de plus en plus on constate plus de taux de cancer du sein comme par exemple activité yu mel ne octobre rose dañ siy dugal seen loxo bu baax a baax on dépiste le maximum de femmes avec des subventions yooyu yëpp c'est des stratégies état bi gën si jàppaat rek ak bonne volonté boo xamante ne bii yaakaar nga ne mën nga si jàpp. boo approché lu mel ni antenne yi lu mel ni association nationale des sages-femmes lu mel ni ñi nga xamante ne ñooy xeex ci kuréelu cancer yëpp ñu bëgg ci seen loxo rek foofu rek la ñuy mën a euh, gañee xeex